dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf li ñu lug président Macky Sall ba taxoon keroog mu doon wax naqar wu mu amee ci anarchie gi am ci ni ñuy recruter ci fonction publique bi l'observateur xëy na di ñu ko leeralal ubbil yéenekaay bi ñaar bokk na ci li ko waral ci gis-gisu journal bi benn bi moo di agent yu bari ci fonction publique bi ndax ci 2011 ngi tolloon ci 91 ci gi ñu yokk ba yegg ci 160 ñaareel bi di li réew mi di ñàkk 404 milliards ci 2021 l'observateur mi ngi ñuy xamalit li waral ba agent yi ci fonction publique bi seenub lim di gën di yokk saa yu ñu yeewoo waaye yeewi ñoo ngi ci kaw moom Macky Sall le mandat Source A L'Info Vox Populi ak journal Bës Bi ñoom ñëpp xëy nañu yeggee li waa coalition yeewi askan wi dànk fanaanal ngir Macky Sall le mandat nañu Khalifa Sall ak i gaayam démb ba ñuy janoo ak taskatu xabaar yi fa la waxee yaari mbir yu ñu war a régler

dialogue le mandat nee nañu waaye yeewi askan wi nee nañu demuñu ca Macky ak dialogoom boobee woote na ci keccet ba ñu set wecc rassemblement gi gars yi woote tey ji ci ngoon ngir di ñaawlu dox yu nu yoon ci réew mi la tribune moom la xëyee yëral xët mu njëkku yéenekaay bi àjjuma ju nar a xattee jaaxle ci journal bi gis ndax nee nañu bari nañu joxante daje ci rassemblement googe mu di syndicat ba ci coalition parti politique ak i mouvement justice ak njiital union des magistrats du Sénégal ci enquête yéenekaay moom magistrat Chimère Diouf bi nee nañu da doon conférence de presse na jëme bi wax ci affectation yi ñu affecté yenn magistrat yi bu yàggul te am ñenn ñu ko gisee sanction wax na ci indépendance de la justice bi ba waxit ci conseil supérieur de la magistrature ci conseil la mbir mu di conseil supérieur de la magistrature sur soi nee nañu njiital UMS gu bees ànd na ci nekk gi ci njiit réew mi nekk moom magistrat Ousmane Chimère Diouf président union des magistrats du Sénégal moo nekk ba tey ci xët mu njëkk Sud Quotidien journal bi ne magistrat yi réew mi engagé woon nañu def seen kéemtalaay kàttan ba élection locale yi ñu jëm am ci transparence Baara Ndiaye lu metti dal na ko liise ko nañu Baara Ndiaye benn doomu Sénégal la buy dund ca Espagne tëj nañu ko fanweeri ati kaso ak juróom-ñaar alamaan ko genn wàllu milliard gu teg 578 millions jabaram ju ñu naan Maguette Ndiaye moom la jamoon juróom-ñett fukki jam-jami paaka ak ñett ba noppi tër ko ne ko deqat ren di ci kanamu seen ñaari doom yu jigéen kenn ki amoon ñaari at ka ca des amoon ñeenti at ci daan yi ko justice bu Espagne gàll liise ko ne nañu bokk na ci tere gi ñu ko tere muy gisee ak ay doomam baa muy déggante ak ñoom fii ak fanweeri at ak juróom ñaari junni di 10 000 libération ne nañu moo tax taxoon waa jii di bàcci géey saakumba rayoon xaritam bii di ibrahima si ca kër masaar fa la jéyee ji amee woon anam wu ñaaw wi mu ko faate woon ak jaasi libe xëy na di ñu ko benn bennal Savon de Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Déotram ma la ci xibaar yi li ci gën a fas yaanamar ak ñii di waa FRAPP nag dañoo fas yéene tey dem ci uh, kaw tali bi doxub ñaxtu ngir daal fexe ba yoon nekkal fi ñëpp te de ñaaxanaay manifeste bi nag uh, préfet da ko mujj autorisé Yewwi Askan Wi ne du bàyyi mbir mi jëm nag ci kii di Djiby Khalle Ngom nekkoon coordinateur bu Pastef foofe ca Matam Yewwi Askan Wi tam dafa daal sax lancé ab pétition ngir daal fexe ba yóbbu kii di président Macky Sall ca uh, kanamu haute cour bu justice ndax daal dañoo jàpp dafa daal di wor waaye tamit lii di ay kadd yu njëkk président union magistrat du Sénégal bañ ko falek tey jii nag bokk na ci euh, kadd yu mu njëkk yëkkati mooy euh, justice bañ fi nekkal kenn bañ a fare fenn waaye tamit euh, li ñu jëlee fi juge teli ko yóbbu ko ci beneen bërëb di kàddu yu njëkk yu kii di Ousmane Chimère Diouf di nga ko deg ci biir xibaar yi lu bal ak ay salaire yu diis gànn moo waral ba lii di poste daal di xoj bu baax a baax Euh, ki nag di Abdoulaye Bèye Baldé jiite poste ne loole daal euh, képp daal ku ñu jàpp ngay def mbiru euh, luubal ak yeneen daal yoon dina daal ci kaw te lépp loo góoxoon di nga ko goxi ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram di ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne yéen kay ak Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Kader Lo ya Maysa Mbaye moo nekk digital bi salaamaaleykum. dal leen jàmm yanamar ak ñii di waa FRAPP euh, joxante rendez-vous tey ci ngoon ca Place de la Nation ngir euh, amal fa ab doxub ñaxtu nee na ñu bëgg mooy yoon te tëddee ñaaxanaay euh, def liggéeyam ne mu waree manifester bi nag préfet bu Ndakaaru da ko dal di autorisé bu ñag sukkandikoo ti ñoom ñooñu di organiser boobulee rassemblement nag dina nekk occasion ngir daal bépp sénégalais boo xam ne daal da nga dund loo xam ne di yoon ci wàllu yoon nga yëkkati fa ay kàddu ñëpp dal di la déglu Yewwi Askan Wi manifester lu ñu bëgg mooy fexe ba yóbbu président Macky Sall ca kanamu haute cour ba justice daal ndax dafa daal di wor jëm nag ci mbiru Djibril ngoom moom mu nekkoon coordinateur bu Pastef fa foofe ca Matam nag ndax dafa jëloon ay dossiers yu candidature yu coalition ba dal di ne mërand ak moom moom nag président Macky Sall moom moo ko dalaloon petition ñoom dañ ko sax mujjee lancé nañ ko fas yéene yóbbu ci assemblée nationale ngir daal ñu fexe ba ñu euh, wax ci mbir mi ña nga woon jëm ci waxtaan ak wàllu xibaar yi Asbara kan fekkee woon na ko. ñoom leaderu coalition Yewwi Askan Wi xaatim nañ ab pétition ngir yóbbu Macky Sall ca kanamu haute cour de justice bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko. dañuy ubbi pétition bu ñu dañee ba dajalee nombre de signataires yi ñu bëgg. dinañ dem yéet ko assemblée nationale. mu des ak diggante ñoom ak askan wi. loolu mooy solos pétition bi. la ca tegu mooy bind nañ aussi Union africaine. ndax moom dafa a dem jëli présidence Union africaine. nee na looloo tax amatul jotu Sénégal ba juróom août bi premier ministre waaye de dinañu bind union africaine aussi jox leen pétition bi comme ñi ñu ci war a waxtaanee yëpp dinañ ci waxtaan ak ñoom. li jëm ci élection locale yi Déthié Fall di naqarlu carte yi ñu joxewul ci lenn ci ay commune gis ngeen rétention carte yi am au niveau de Ziguinchor mu doon lu doy waar parce que plus de trois mille voire quatre mille personnes ay primo votants inscrire nañ fa te ba fii ñuy wax ak yéen la fa feeñ ci carte lim bu néew la loolu di situation bu grave. beneen situation bi ñu noté mooy au niveau de Kër Massar loolu di wane déjà cuune ak ñàkk anticipation bi nga xam ni ñoo ngi ko doon wax. Déthié Fall di xamle ni déposé nañ ab plainte contre Djibril Ngom. fële ca parquet bu maatam lii accusé de réception la au niveau du parquet de maatam donc yoon dina ko topp. li nga xam ni def na ko. pas seulement contre Yewwi Askan mais contre la démocratie. jël bakkanu. démocratie Sénégal fatt ko. mooy act bi mu posé. et yoon dina dem jusqu'au bout. ñoom waa coalition Yewwi Askan Wi wax nañ ci ñëwaatu post premier ministre bi ñu jàppee ni débat la bu amul benn solo. yoon tëddee ñaaxanaay bañ a fare fenn nag loolu sax mooy kàddu yu njëkk yoo xam ne. Euh, union de magistrats du euh, Sénégal nag euh, di ko fàttali ñamu ŋànk nag ne loole daal dafa daal doon loo xam ne ku ne daal ak nag ci demee maanaam dafa war a nekk loo xam ne dafa personnel ca nag démb conférence de presse président bu UMS nag yëkkati ay kàddu njëkk sax gannaaw bañ ko falee ne daal li ñu kii di président ko daal liñ ko daal di affecté du benn daan du sanction waaye nag liggéeyam rek moom moo ko daal di Ousmane Chimène Diouf nag di sax leeral na daal euh, bu dee am na ñenn ci ay ñoñam ñu jàpp ne daal euh, moom mii di Ousmane Teliko dafa daal di saisir UMS ci loole Mm, jëm nag ci liñ ko Afrique foofee ca Tambacounda loolee amul soo maxoon ci ay leeral. donte yoon doxalinam ñu bari dañ koy ñaawlu kuréel gi nga xamante ne moo lëkkale magistrat yi fii ci Sénégal gis na bu baax a baax critique yooyu nga xamante ne ñoo ngi koy teg ci kawam. waaye union de magistrats bu Sénégal dañu leeral ne nag justice dina doxal te du nangu benn pression ñu teg ko ci kawam Ousmane Chimère Diouf moo jiite UMS. waaye du si ay yëngu-yëngu aussi war a mën a wax justice naka lay àtte benn juge. warul di atte am benn genre pression bu ñu la teg wane na yow yoon bii nga war a jaar kenn attewul pour bànneexu kenn dañuy atte pour xool fan la yoon ba nekk fan la dëgg ba ne. ci laaj bu dem ci affectation bi nga xamante ne dañ ko def ku mu wuutu foofu ca UMS te ñu yóbbu ko foofu ca Tambacounda Ousmane Chimère Diouf dafay leeral ne gisewu ko sanction yokk ci leeral ne sax teeli ko waxul ak waa UMS ñu ko yóbbee foofu ca Tamba. affecté nañu ko mais moom puisque bi ñu koy affecté ma nga toog moom fekkee na ko te lam fa war a wax wax na ko mais bi ñu paree ñun ñëwul saisir bureau UMS pour wax leen lii wala lii moo tax te fi ñu ko teg mooy ki nga xam ne moom nee nañ loolu moom moo ko dal su ñëwoon suñu nañu lii at lii at lii la bu ñu dem si kilifa ga dañu xam ni ñu waxtaan ak moom mais moom ba nii nii ñëwagul si bureau EMS. mu bari ay dossier wala sax ay décision yoo xam ne justice mu ngi ko jël ñu bari di ko faral di ñaawlu rawatina ñi yëngu ci mbirum politique njiitum EMS leeral ne nag yoon dafa am doxalinam ñi yëngu ci mbirum politique am seen doxalin. coowum politique nag bari na Sénégal. politique nu muy doxee. justice mënul doxe noonu. politique muy waxee. justice mënul waxee noonu. li ñu tax a bokkul. ni ni ñuy dundee bokkul mënuñu nag bés bu ne fu nit ñëwee rek dal suñu kaw ñu dug tontu. ci mbirum rappeur bi di kilifa te ñu bañal ko liberté provisoire bàyyi ki nga xamante ne moom la nekkaloon ci kaso bi njiitum UMS leeral ne ku ñu tuumaal ci mbirum dossier ku nekk am na ci rôle boo xam ne mën na wuute ak li neen ñi def ci dossier boobu. bu élection amee jomaxoon ba ñuy proclamer ay résultats yenn de ñàkk a déggu yeeg jiixi jaax yi bu moom UMS ne daal. loole taxawaayu représentant liste yi daal ñoom ñooy fekkee yu may bu yam kon ñoom ñoo ci war a xam dara union des magistrats du Sénégal nag du fekkee loolee amul benn magistrat boo xam ne bu ñuy euh, lim wala ñuy depuis daal di nga fekk yooyu l'opération président bu UMS Ousmane Chimère Diop ak Jo Maroun. bureau de ñoom bu ñuy def seen dépouillement mooy bu fekkee ne ñu ngi commencé di tàmbali di ku si nekk loo am kenn suñu fekkewu ko duñu fa taxaw amul benn magistrat bu taxaw si bu ñuy def dépouillement ñoom bu ñu defee seen dépouillement ba pare te bu ñu koy def képp koo xam ne bokk nga si élection bi muy liste de candidats am nga fa représentant am nga ko la fa toogal donc ñoom ñooy def liggéey bi ñoom ak président bureau de vote yi ñun nekkuñu fa bu bureau de vote bi résultat ya ñun nekkuñu fa bu ñu palee nag te procès verbaux yooyu ñu xam ne dañ koy affiché sax si bureau de vote yi ñëpp ko gis moom la ñuy yónnee ñun si procès verbaux yooyu la ñuy liggéey si commission yi donc résultat bu ñu proclamer rek dafay fekk ñooñu euh, ñu doon représenté foofu ñeneen wuutu nañ leen tamit si commission yi fekkee te document boobu ñu fa jëlee ñoom di di PV yi moom la ñuy joxe ñun si la ñuy liggéey donc amul benn magistrat buy ñëw yore kayit boo xam ne nit ku toog si commission bi yoru ko ñëpp a ko yore bu ñu ubbi enveloppe yi li koy jàngee di ko lire ñoom ñëpp copie yi ñu nga def pour wax ji mu leer ne coowum ay résultat li ay pour wax ji ñëpp xam ne lépp lu ñu liggéey rek si bureau de vote yi la jógee agsi si ñun te ba muy agsi si ñun képp ku toog si commission rek yore nga si ko. Ousmane euh, Chimère Diouf euh, jiite UMS juróom-ñett waxtu teg na juróom-ñett simili fii ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. agression bi ñu jàpp na daal ki jiite poste euh, wala syndicat bu poste Ibrahima Sadou ko dal di euh, dund euh, moom mi nag di directeur général ba mi ngi ci joxari baaraamu tuuma da cee raxas ba mu set wecc ne moom laalewu ci dara ci boobule agression lay biibal sax ne. moom mi jàpp ne daal ko daal di agressé na wax kan la waaye daal na bay di jël lépp di ko teg ci ndoddam moom nag daal di bi bale ni ki démb nag ma nga doon waxtaan wa taskatu xibaar yi ne mbiru luubal ak ay salaire yu diis waral ba li daal poste daal di ami jafe-jafe dina ay kaddoom moom mi nag jiite lii di poste ne daal képp daal kuñ jàpp ngay def mbiru guerre wala mbuxum yoon dina daal ci kaw ci lépp loo góoxoon di nga ko gox yi léexal yi euh, kañ fa boo weesoo concurrence bi nga xam ne poste am na jafe-jafe lool ngir jàmmalook moom këru liggéeykaay bile mu ngi bëgg a suux ndax ay détournement ak yi ni mel Abdoulaye bi Baldé moom mooy directeur général poste. chaque année problème détournement day am post lu ñu ñaawlu la d'ailleurs chaque année de ci day am benn ñaar ñett parfois plus ren nag bi ñu découvrir les 1,5 milliards am nga 1,5 milliard dafa bëri chaque jour ñu ngi amuñu xaalis ñu découvrir loolu voilà ñëpp mun nañu jaaxle. agent bu nga xam ni nag sa loxo laali na muy détournement wala càccum xaalis dinga nga ko diggaaleeg justice te di nga ko fay bu ñu sukkandiku ci directeur bi. loolu sanction yi ku jël xaalis poste. mooy kii fiy liggéey travailleur yi. mooy fournisseur ñoom ñëpp. te nañu fay jusqu'au dernier centime loolu c'est un principe loolu kenn du ko mun a déroger et donc parce que soo c'est de l'argent public donc loolu jarul coow. beneen jafe-jafe bi nga xam ne poste moo ngi koy jànkonteel te mu sonal ko lool moo di personnel bi nga xam ne li muy jël ci salaire jéggi na dayo en tout cas ñu xoolee tey suñu besoin personnel. méngawul ak suñu am-am suñu koom ren soo xoolee lu ñuy liggéey par année à peu près huit milliards suñu masse mu ngi euh, dix huit milliards donc gab boobu ni ñuy dundee sa comme day mel ni dañuy leb xaalis pour dund donc au-dessus de nos moyens que tout simplement état bi mooy euh, ñëw à notre secours. moo waral directeur bi di xamle ne daañu càmbaraat kër gi la di poste ngir mën a saafara mbir yi leen nga xamante ne bokk na ci li ko andil jafe-jafe yi muy dund. feneen fu am tension mooy centre hospitalier régional bu gi ba tey daal yëf yaa ngi fay tàng lool ndax agent yu santé bokk ci sas amal nañu seen ñetteelu sitting ne xamuñu lu waral ñuy yokk indemnité maanaam ndàmpaay directeur ba Matamali Bandel ñaa dàppatliwaat nañu xeex gi ñuy xeex mu ñeel mennum revendication bi ñu langoo bi ñu sumbee seen mouvement d'humeur beeg léegi agent de santé bokk ci syndicat bi di SUSAS ci centre hospitalier régional bu Ourossogui ab sitting lañu toogaane woon gannaaw bi ñu beddee ko salle de soins ak de consultation yi Cheikh Bouya Niang mooy ki yore wàllum communication section locale bu SUSAS. di fàttali rek tey SUSAS moo euh, toog def toogaanu ñaxtu ngir dañoo jékki-jékki conseil d'administration bi en concert ak directeur bi yokk ay primam lu ñuy wax prime jëlee ko six cent cinq cent mille yóbbu ko ba un million quatre-vingt-dix mille ne nag yéen ñëpp ñu des ci personnel bi amu leen ci wàll loolu la SITSAS wax ni mënut a doon ndaxte liggéeykat yëpp ñoo bokk liggéey recette yooyu bu dee am na liñ ciy cof di jox joxe nañ ko jox ñëpp ñu yem ci ki ci gën a tuuti boobu ci moom directeur bañ a luñ ko ko waaye dañu ne na si ñëpp jot seen wàll euh, leneen li ci tegu mooy dem nañu euh, ba ci diggu euh, biir mouvement bi ñu seetlu ne ci maanaam fonds corona yi dafa am li nga xamante ni dañ ko jagleloon ñi feebar tëdd ngir Euh, ñu joxe leen ko muy lekk seen restauration añ ndékki ak reer bi ñu demee ba ci ngir gis dafa am facture bu ñu jël pour euh, maanaam justifier loolu te facture boobu jaarut yoon. lu ñeel malversation yi ñu ne amal nañ ko ci koppar yi ñu waroon jagleel la restauration ñi tawat amee jàngoro yi Covid 19 yi nga xamante ni amal nañ ko ci administration hôpital bi kat xam leen nañ ñu ne koppar yooyu ñuy wax mu nga ca biir compte hôpital ba suuf yooyee sax duñu xamal ni xanaa gaañ ñi dañoo soxla woon rek ay facture ngir ñu mën a. Maniang Soumaré foofu 16h30 diggante Mbour Petite Côte tey daal di doon ak ñi di waa AS Douanes mhm. ca Ndar stade foofu dimanche Linguère bu Saint-Louis dana fa tasek ñi SNEPS excellence bu Thiès hmm, ñu waxtaanee leen kan bi ak covid bi waaw kan beeg covid beeg coow li nga xamante ne daal moom lañ fas yéene appliqué ngir képp ki nga xamante ne bëgg ngaa assister si match yi ak itam euh, lii nga xamante ne moom la équipe war a mën a euh, taxawee ak lépp lu jëm ci wàllu li nga xamante ni moo di analyse jëlee ko ci benn laboratoire bi nga xamante ni laboratoire indépendant la ñu ànd seek Serigne Saliou Seck jàngoro coronavirus bi di Covid 19 ak variant yu bees yi ci feeñ tax na ba nu jël dogal yu yees jëmale ko ci Coupe d'Afrique des nation bi am ci weeru janvier atum 2022 ci Cameroun ci communiqué boo xam ne si CAF COCAN FECAFOOT ñoo lëkkaloo daal di koy génne ñu mën caa jàng ne jàngoroy coronavirus bi ak yu bëri yi mu def ci àdduna bi du tere ne dund gi dafay woy waaye nag Cameroun ak jongante yu am solo yi fi war a am tax na ba wàllu wér-gu-yaram bi duñ ko fowe benn yoon ci biir communiqué bi ñu mën cee jànge Africa Foot dañoo lëkkaloo ba mën a amal Coupe d'Afrique des Nations bu jaar yoon boo xam ne si dinañ mën a moytu bu baax a baax jàngoro jile di coronavirus lii tax ba ñu ne kaan bi sax porox ndollu la war a doon ngir ñu man cee wane bu baax a baax ni ni moytoo jàngoro jile di Covid 19 te ci loolu dinañ ci wane bu baax ni ni raxasee suñuy loxo ni ni takke masque yi waaye tamit ci wàllu vaccination ci vaccination yooyu sax bokk na ci ponk bu ëpp doole boo xam ne mën nañ koo jànge ci bile communiqué muy ne képp a dugg ci stade yi nga xam si fi la ni amale yi jongante waaye tamit faw nga daal di wane benn test PCR boo xam ne dina def lu mu gàtt-gàtt ñetti fan leneen loo xam si tamit communiqué bi daal dina koy fesal moo di ne njiit yi yore wàllum wér gi yaram dinañ yombal bu baax a baax bépp supporter wala gépp koo xam si bëgg ngaa fekk yi la jongante nga daal di mën a amal sa test wala sax nga vacciné wu lu jëm ci footballkat yi nga xam si ñooy bokk ci équipe yi nar a fekk bile kaan kaaf di leeral ne benn laboratoire indépendant la ñuy andi teg seen wala gënale ci benn équipe. ñu daal di wax championnat ci biti réew championnat bu Angleterre ni ki démb la ñoo jeexal li nga xam ni moo di seen euh, dix-septième journée ñaari jongante mujjoon a am benn bi dañu ko daal di kon bokk tëbal la ko waral moo di mbas bi nga xam te ni moo daal di am ci biir équipe bi nga xam te ni moo di Tottenham ba tax si jongante ak euh, démb diggante ak Leicester ñu daal di ko dàq ba jëmi jamono waaye démb Chelsea ak Liverpool ñoom ñaar ñëpp daal nañu joué Chelsea bu Edouard Mendy moom mën naa am lu mu rëccu ndax démb dafa mujj match nul ca dëkkam hmm. diggam ak ñi di waa Everton un but partout euh, googu jongante nag kii di Edouard Mendy ma nga woon ca camp ya waaye kii di Romelu Lukaku Timo Werner Hudson Odoi ak Ben Chilwell ñoom ñëpp bokkuñu si hmm. ndax corona bi moo leen daal di euh, tëral ca Liverpool ñoom dal nañu lijjanti mbir yi ànd seeg Sadio Mané moom mi nga xamante ni si ñaari but yëpp da cee dal di impliqué benn but bi di butu euh, Salah euh, ba ca des nag euh, ki nga xam te ni mooy Trent Alexander Arnold moom moo ko dal di dugal jàppale nag Diogo Jota moom itam jot naa dugal ci googu lay jogante démb nag Liverpool mujj naa am ndam diggante mag ñi di waa Newcastle ñetti bal ci benn Virgil van Dijk Fabinho ak Curtis Jones ñoom ñett jot ñoo bokk ci gile jongante ndax mbas mi nga xamante ni moo fa euh, daal di euh, dugg kon bokk Seydou. Mhm. Euh, xanaa rek ñu daal dem ca France foofu itam. am mhm. doomu Sénégal bu ci ràññeeku. moo di Habib Diallo ànd ak Strasbourg ci wàllu seizième de finale ñu jot a qualifié ñoom nag dem trente-deuxième de finale gannaaw ba ñu doon am jongante seen digg ak Valenciennes Strasbourg moo leen daal di daan benn bal ci dara na ma ko waxee Habib Diallo moom moo jot a dugal bitus équipe boobule. Strasbourg 15 minutes de jeu ba tax na fi mu toll nii ñoom waa Strasbourg dal nañu qualifié ci 16 de finale Coupe de France. mu ngoog jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM maa leen di nuyu mbokk yi aada ngir gën a dëgëral lii di développement durable bu Casamance projet la boo xam ne artiste bi di Maman Guériti moo ko taxawal mbébétam moom mooy di gunge jigéen ñi ñu gën a mën a entreprendre Oumou Kalsoum li ana nan lañ mën a jëfandikoo ci aada ak cosaan ngir fexe càmbar jafe-jafe yi am ci wàllum développement ci Casamance loolu la artiste bi di Maman Guériti bëgg amal mu dooree ko ci jigéen ñi ngir mën leen tàggat ci wàllum mbay ak ci wàllum coppar produit yi. Euh, kon commencé naa former ay nit euh, Casamance ay jigéen pour ñu mën a demal seen bopp mënal seen bopp. Bignona ma kon ma bëgg nag wàcc wàcc ba ci village yi mais il faut tamit ñu former leen ci pour développement ba tax na tey la formation bi commencé formation bi ñetti fan la projet bi nag day laal diwaan bu Casamance ak diwaan bu Ndakaaru wante artiste bi ku am na mbébétu wéyal ko ci région yi ci Sénégal gi yëpp ngir fexe ba jigéen yi mënal seen bopp mbéy mosuñu maam yi doon mbéy euh, dafa changé léegi mbéy mi mën nga ci am xaalis mbéy mi mën nga ci mën na la indil koom-koom bu bëri ndax suuf si moom loo ko jox lool loola lay delloo surtout li may pour euh, ñi ñu bay en dehors de tool yi ndax li ngay bay wala lu sa moroom bay bu kii béyee kii nekk Casamance bu béyee kii nekk fii mu dem jëndi ko bu ñëwee fii mu transformé ko def ko ay jus wala mu def ko ay céréales dafay nekk consommation locale mais au lieu ñuy xaar luy jóge extérieur waxuma la état rek mais bu ci ñëpp jàppee dina dem parce que xale yaa ngi fii bëgg nañu xay bëgg nañu def. ba léegi ci dimbali jigéen ñi mama bëgg na organiser ab soirée boo xamante ni da ciy xaalis bay bàyyeekoo ci bile soirée nag dana ko dugal ci gafaga jigéen ñi ngir ñu mën cee amal seen ay projet foofee ca Ziguinchor sax daañu amal di ko dalee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre gi fukk ak ñeenteeli édition festival international koom-koom mu di euh, xew-xew boo xamante ne ñu ngi koy euh, jegleel fësal aadawu euh, Casamance war a yàgg nag diirug juróomi fan Khalifa Dramé lañ ciy diglu muy njiital GIE koom-koom mi taxawal festival bi. projet de développement la jeudi 23 décembre dafay am forum et dafay am ay ndaje. daje yu bëre yoo xam ne acteurs yi dañu gisante seen biir pour waxtaan puisque marché lañ ko bëgg a def donc euh, salon de tourisme de la Graptica lañ ko bëgg a def donc bu ñu jógee foofu dafay am euh, carnaval euh, dafay am ay défilé de mode dafay am ay concert dafay am ay groupe traditionnel également yoo xam ne dañuy jouer jógee ci Sénégal ak sous-région bi ñu invité également acteurs yi yëpp yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci tourisme ñoom ñoo nekk ci culture ñoom ñoo nekk plan wàllu biodiversité ñu ñëw toog ci ndaje bi waxtaan ku nekk wane ay mbir. waxtaan gu mu sekk ak Ndate Diop dangeen ko mën déglu ni ki ëllëg samedi moom Khalifa Dramé mooy doon ganuk suñu magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Samorno Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia yumu